parce que booy euh, euh, liggéeyal askan da nga len wax li am da nga wax li nga mën mais bo len diggee lo xam ñu tok di xaar ëllëg defuloko ko dina nek retour de bâton maanaam di nga ko gis donc japp nañ ne lepp lo xam li priorité pour ñun moy li nga xam da fay jëm ci faj soxla askan wi. Mhm. tay ji suñu wax réforme ak modernisation yéen wa forum civil yan jàngat ngeen ci am. wa suñu jàngat daanaka des années forum civil euh, day top ci ginnaw et nguur gi di leen wax ne il faut que ñu réformer justice euh, naam am na ay jéego yoo xam ne jot nañ ko ci def euh, ci wàllu sursus euh, surtout ci justice financière mooy ci le pôle judiciaire financier, bi nga xam ne mettre en place en 2003 en 2023 pôle judiciaire boobu ci biir mu am un parquet national financier loolu nekk noo xam ne réforme boo gouvernement bi passé jot na ko jot na ko def mu nekk loo xam ne dañ koy dañ koy rafetlu euh, Finir xaré nak fondamentalement euh, nguur gi mooy mu def état des lieux xol lepp lo xamné ligue liggéey na fi ci liggéey ci walu réforme justice en avril 2018 amna fi rapport fi génn en 2021 wa UMS également organise organise fi leul bo xamné jëm ci walu wàllu wàllu justice euh, yagul dara fi ay quatre ou 5 mois fi ci biir salle bi ni l'ancien ministre de la justice je pense maître Aïssata Tall également wotone fi won pour discuter ci longue détention yi dans euh, l'ensemble dajale fi des euh, chefs de chefs de chefs de parquet donc lu ñuy xaar fi mu nekk moo ñu def état des digitalisation également parce que liggéeyu tey bi la commission la bokk la commission scientifique bi commission modernisation commission modernisation il dafa wax la digitalisation damay wax ne am na projet et programme à xam ne amoon ci milieu de la justice bi jëm faire la digitalisation il faut que le ministère de la justice il ñu état des lieux ñu xam ñaata lañ dugal ci xaalis ci le programme nous xam également l'état des lieux ci la digitalisation donc bu ñu état des lieux je pense que nous a xam la digitalisation nous xam également fan la jëm ci réforme parce que réforme yi daf ci am xam ne mën ko def tey suba la semaine prochaine parce que modification loi la lay laaj Nous lu jëm ci le mandat de dépôt parce que souvent euh, c'est vrai euh, ci gis-gisu sénégalais bi magistrat bi dafa de loxo parce que tout le temps dafay def mandat de dépôt mais magistrat bi dañ ko sante pour mu appliquer les lois appliquer les lois mais fekkente ne loi bi dafa xol de kat ki toutes les conditions sont réunies pour mu def mandat de dépôt su bañul wàcc yoon daf koy appliquer mom du xol ndax prison fess na wala fessul donc ki nga xamne ne wara xol ndax prison fess na ki nga xamne ne wara tabax prison bu bees mom mom loolu moy le ministère kok loolu la war loolu loolu moko war le ministère la war le président la war l'Assemblée nationale la war mais mais ça est-ce que condition ou euh, euh, euh, mandat de dépôt est-ce que condition ou def institution donc parlementaire, en tout cas parlementaire ci te je pense que bu suba wala suba semaine prochaine bu ko assemblée nationale n'ango. ñu ko nationale modifier loi yi magistrat bi ah condition yi ñu pour mandat de dépôt amatul na conditions yu bess mhm. mais amna ci ay réformes yo xamné dafa laaj temps moy ci walu statut du magistrat les conditions du magistrat les conditions de l'avocat, parce que justice direct magistrat justice avocat ci le bok justice greffier ci le bok justice huissier ci le bok notaire justice notaire ci le bok justice sama yaay wala sama tante wala sama rak ji nga xamné bu tapewul ay dossier jox ko procureur wala jox ko juge bi bu nekkul dans de bonnes conditions moom magistrat bi du mën a liggéey donc ñooñu tamit dañ koy dañ il faut que ñu xool leurs conditions de travail ñu xool également le cadre de travail du magistrat xool le cadre de travail du de l' avocat je parle de l' avocat ñun ñi par exemple liggéey ci wàllu corruption defaa nga wax dara ca Podor ca Tambacounda mu naqadi kenn porte le porte la plainte yóbbu devant le juge mais pour nga am avocat Podor doo ko am il faut nga dem ba Matam il faut nga dem ba Saint-Louis donc naka la gouvernement bi mën a liggéey ak avocat yi ba nga xam ne le citoyen aura accès à la justice mais accès également d'abord, qui défend ce droit moi mooy l'avocat. donc nous réforme yoo xam ne yomb lay nous nekkul également euh, euh, euh, liggéey réforme, ne lu yomb lay don mais li ñu ñaan une rupture dans la démarche Mais bu nit ñu liggéey ba rapport ba pareil. li le président de la République mooy mu def application recommandation yoo xam dina génn ci assise question pour euh, Brahim. comme euh, des comptes dama délu dama ko rythme bi gannaaw ba rapport yi gannaaw itam leen rythme bi ngir yegg ci rythme yow pour yow c'est a un peu de le gouvernement traîne un peu les un peu de lenteur quoi. Il y, a un peu de lenteur. parce que le président a annoncé le 3 avril qu'il a euh, euh, euh, publié publier rapport mhm. il a fallu faire un rappel. Mhm. pour que l'OFNAC, à Cour des comptes ait un rapport L'IG, IG e inspection générale d'État, depuis que le président de la République def annonce publié publier rapport jusqu'à présent l'inspection générale d'État, a publié le rapport. Autorité autorités également adduwuñ ci loolu nekk na lo xamne dañ koy signifier les autorités il n'en est pas question que mo am ay rapports yoo xam des codes de contrôle dañ koy produire IGE taxaw ne rapport yo duñ ko publier te Sénégalais dañu xam exactement sen xaalis naka lañ ko yoré lolou ben la depuis que également ñu génnee rapport yi mun na am mais ba léegi déggaguñ ko mun na une mun am une commission bo xamne ne mettre en place pour examiner recommandations yi yi nga xamne da fay laaj sanction administrative autorité war ci jóg dégguñ sanction administrative li nga xam ne également dafa laaj sanction judiciaire dégg nañ ministère de la justice ne dina am poursuite hmm. mais teguguñ jéego yoo xam ne dina wane ne dina am poursuite donc yeex na te te te te nekkul loo xam ne en tout cas moom lañu xaar moom lañu xaar ci le gouvernement li ñu xaar ci gouvernement moo ñu baral seen loxo ba nga xam ne lépp loo xam ne réduction des comptes la mu nekk une réalité au niveau au niveau du Sénégal sànq junj naa la le le le le pôle judiciaire financier tey jii nii Ibrahima tous les instruments pour lutter contre la criminalité daanaka am nañ ko donc il faut une mise en œuvre Dans l'ordre, il faut dañuy le gouvernement. Hmm. bëgguñ nak mais il faut que nous le rappelions souvent. bien sûr Il y a mbir aussi yoo du forum civil am ngeen xalaat conseil constitutionnel ak juridiction est-ce que faut voir ni war na am réformes aussi. xam nga les conseils Je ma su ma commencé ci conseil supérieur de la de la magistrature xam nga que le président Diomaye Faye a dit que dina am le gouvernement des juges le gouvernement de juge beaucoup de déggee mooy dañuy bàyyi rek magistrat yi di décider seen bopp loolu mënta nekk loolu am naa ci ak parce que consuper la magistrature ñun d'accord ñu président génn Consuper de la magistrature d'accord ñu ministre de la justice génn mais réforme bi ñu war am mooy ñi nga xam ne le président de la république di désigner ñu bañ a ëpp ñi nga que ne la magistrat yi di désigner moo am équilibre entre les élus et maanaam ñi nga xam dañu leen élire wala dugg ci biir conseil supérieur de la magistrature ñu tolloog ñi nga xam ne moom président de di désigner ñu nekk ci biir conseil supérieur de la magistrature. ci wàllu également carrière. yi balaa ngay balaa ñuy répartir les postes mais rien n'empêche on lance un appel en concurrence entre les magistrats ñoo xam ne ñu bokk même grade ñoo xam ne ñoo ñoo am yenn yenn ñoo tolloo daanaka ay compétences tolloo également expérience bu ñu lancer un appel à concurrence président ne jox la ma ci ñaar wala ñett ñaari ñett yoo xam ne yéen a ko désigné ma tànn ci kenn mu nekk au niveau de juridiction, loolu ay ay réforme la loolu da koy protéger moom li may wax ne mën a jaaxal ñu bari dañ ne mais pourquoi tey ñu war libérer président ñu war a détacher président ci loolu noonu mais loolu da koy protéger parce que ëllëg boo amee benn contentieux bu ñu surtout contentieux à connotation politique kenn du ne kii président de la République moo fa teg d'office mais dañ ne magistrat yi kat ñoo xam ne kii xarañ na président daal ki désigné teg ko fa donc dafa nekk réforme yoo xam ne da koy protéger moom sur le fonctionnement des juridictions mu nekk Tamba mu Saint-Louis mu nekk Podor mu nekk Kédougou mu nekk il faut que ñu am une autonomie budgétaire ñoom am ne dañu fonctionner bañ dépendre directement du ministère de la justice mais ñu a une autonomie budgétaire parce que justice fiir ne fiir boo ne délicate délicate

Nous avons contentieux au niveau de la chambre administrative de la cour suprême naka lay ñëwee contentieux bi la plupart du temps borom doole bu dem ce euh, euh, procès donc à yi lan apporter comme contribution ba la justice administrative doit être une justice qui est accessible à ces paysans là. Hmm. parce que mbirum suuf bi coow la ci dëkk bi. coow bu mag a un un appel au gouvernement commission bi met mettre en place la commission ad hoc bi mettre en place pour saytu lepp lo xamné euh, ci euh, joxe souffle ci wal littoral bi bu ci dellu ginnaaw de parce qu'on les surveille parce que littoral bobu noonu on les surveille bu baakha baakha baax a ci dellu ginnaaw dañoo wara a même si fekkente ne dina ay intérêt litigieux parce que ma paree su si quand je parle l'intérêt litigieux ñi may wax xam nañu baax la may wax buñ ci dellu ginnaaw cette commission qui a mis en qui est mis en place ne doit pas être une commission pour reculer Hein. léegi ñu wax si beneen longue détention préventive yi yéen forum civil bu njëkk ba dañ doon dégg ñun bu ñu nekkee ay travaux forcés ak travaux d'intérêt public tey avec ak euh, numérique bi yaa ngi ko doon wax bracelet électronique si est-ce que mën nañu gérer équilibre yooyu pour que prison yi bañ a fees xam nga sànq bi may commencé juñ naan nee la l'ancien ministre de la justice Aïssata Tall Sall woote na salle tous les chefs de parquet du Sénégal na leen wax nañ leen wax ci longue détention rapport boobu Je man meilleur moyen wax mooy rapport bi ñu xam quelles sont les conclusions Il y a une solution parce que euh, loolu sama xarit Seydi Gassama yàgg na ci a une solution le magistrat a proposé pour limiter les de tension est-ce que problème moyen moyen humain parce que longue détention ça signifie quoi d'amener lay pour mën def enquête ba xam ndax na wala parce que mon juge là me rendre décision n'importe comment parce que dossier bi infraction bi pendant une durée langam motam le rôle de l'Assemblée nationale est-ce que le gouvernement aujourd'hui est prêt pour recruter le personnel judiciaire nécessaire pour limiter les longues détentions est-ce que le gouvernement actuel est prêt pour tabac yenen ay ay moderne mmh. pas pour des techniques. parce que nga jël ay xalé lo xam ne société nangu ko mu dox yamba wala len nangu ko mais nga tejj ko ak dolem yak la demal nga liggéeyloo ko pour des travaux d'intérêt public lo xam da nga naan ko lii boo si liggéeyee yaa moom lii mais nga accompagne ko également ak une éducation ben des des cours d'éducation société bi li la laaj li mo état de droit lii waroo ko def lii nangam nangam mais da ngay liggéeyaale bo liggéeyee parti bi yaa ko moom mm. pour bo génnee nga am ci lo téye

parce que tamit nek prisonnier nekkul nga nek taxul nga nek bracelet électronique nak nag. mën nek solution aussi ou pas. Euh, déjà fofu ba mu fa dama njëkk laaj d'abord marché bracelet <laughs> Ibrahima marché bracelet ba léegi loolu ñu ngi top topp. waaw euh, euh, luy ñëw après la luy ñëw après la foofu dal bëgguma ci ki gum. waaw ndax li ngeen ci def dal xali <laughs> wa waaw. li ma ko bëggoon laaj rek moy c'est vrai que proposition yi mom xam nañ ne def ngeen ko waye yeen di moment que am na ay courriel yu ngeen di liggéeyandol te xam ngeen ne itam longue détention tention ak ñi ñuy téye ci itam barab yi di leen xoñoñal mu nekk loo xam ne itam ñàkk sàmmoonteeg seen wareef ak seen yelleef la ndax am na yéen accompagnement matériel technique ou financier boo xam ne mën ngeen ko defal gouvernement bi ngir loolu ñu mën ci bind saafara